article 4 ñeenteelu matukaay waruñu def kenn jaam mbaa mbindaan jaam ak njaayum jaam nanguwuñu ko ci anam gu mu munti doon